dal la doomu ndeyu Modou xarañ loo ndax nee naa lu laal parcelle ak Cambérène laal ko muy góor a mbaxal ndax ku ne xam ne ni muy sonne ci li nga xamante ne mooy mbëru parcelles yi tey nag dale ko ne mooy géeju Malibu nar a waxtaan ak point yu bare bare ba ndax am na ci combat yoo xam ne taxaw na ku ci mel ni Franc ak Ama Baldé combat bi taxaw na ndax boo xoolee avant combat taxaw am na lu ñu ci waxoon combat bi taxaw dañuy ñëwaat waxtaan ci waat ak moom dama koy dalal moom Gora Mbaxal jox ko mu nuyoo après ñu continuer li nga xamante ne mooy waxtaan bi Gora maa ngi lay nuyu. yaa maa lay ziar soxna si di la jox sa wàccuwaay tur bi naa dama damay fàtt aya maa lay ziar la jox sa waay di nuyu Aïssa PDG bu mag bi <laughs> xam nga di nuyu waa Dakar people yëpp ah waaw di gërëm ñëpp di sant yàlla di nuyu Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm xam nga di nuy sunu mbokk tiijaan mu Xaadir suñu mbokk yi. ma ñëpp daal di wax Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm di nuyu waa àdduna euh, bi yàlla na fi yàlla def jàmm waaw yàlla na ñëpp am jàmm daal waaw yaa ma gën a xam noonu la deme ay ci am na solo noonu la nuyoo moom Gora Mbaxal mais ku ne xam ne ñu ngi ci weeru màggal ku ne xam ne ba tey nag ñu ngi ci safar gi di ñaanal képp ku xam ne yaa ngi dem suñu borom teg la ci yoon nga mën a demaat ci jàmm ñëwaat ci jàmm di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal way dawla yi nga xamante wax dëgg yàlla suñu borom jëlee na lañ fi ñeen fa fekk di ñaanal daal ñëpp jàmm ay ci Gora euh, ku ne xam na ni yow da ngay tiitaroo parcelle yow da ngaa bëgg parcelle sa digganteeg mbëru parcelle yi ndax ku ne góor a xam ne moom mbëru parcelle amu ci sens interdit ñëpp la supporté ñëpp la bëgg ci am combat mu gunge la ànd ak ba yàlla def nga am damu indiwaale fi nga xamante ne mooy parcelle wala cambre sa digganteeg mbëru parcelle non jàmm la rek en tant que des ak ay mag ak rakkan ah, ñuy jàmm ñoo xam ne sport sport jàppalante la ñoom ay mbër lañ man xam nga acteur de développement laa def lu baax laa xam nga dëkk Sénégal am man dara daal xam nga am autorité yu ma yàlla booleel yu mag am ni ñu ma yàlla booleel ma leen di jàppale li ma man si sama côté ma defal leen ko ñoom lii la war ñu def ah waaw dëkkandoo la rek bu yàgg bi mu nekkee xale yi ku mel ni Franc bi mu nekkee booy man ak moom waroon nañ bëre mbapat ma nekkoon mbër xam nga ku mel ni Ardo bëri nañ mbapat ma moom xam nga Giro Seras bëri noonu mbapat ma moom ñu grand komba kon yooyu yëpp ay ami lan ay frère lan ñu yàgg ànd yàgg nekk ñoom ñuy seen liggéey mooy bëre dañ leen siy jàppale parce que nit ku ne li ngay liggéey si ngay jaamu yàlla man maleureusement xam nga mujj ma nekk bàyyi làmb nekk sama business ba yàlla dimbali ma xam nga ma doon fonctionnaire état yàlla dimbali ma benn as xam nga naan yàlla ku mu jox kopp fondé yàlla ku mu jox e, paanu fondé te kopp fondé e, doy la da laa loo ah noonu la rek ñun liñ seetlu ñuy sédd ak ñoom bokk ak ñoom ah. la ah. Mhm. parfois dañuy dégg xale parcelle naan góor a mooy moniment parcelle. ah ba tey ku ne li nga gis ngay wax. waaw am na ñoo xam ne dañuy nangu monument am na ñoo xam ne dañu naan du am na ñoo xam ne dañuy dañuy dute. mais àdduna noonu la nangu bañ wala diggante bi xel ñaar ñett yooyu la rek lool la ah. waaw mais ku li nga doon moom yàlla def na ko si yow ba pare après lu ni ñi wax c'est pas méchant pour man mhm. waaw. Mhm. dut baaraam parcelle bu ngoonee góor a tontu la loolu sa digganteeg bari la wala des fois da ngay bañ ko gita gita ngaas ak pa. non dama xam ne waa parcelle amul lu leen nit di waxal loo leen war a waxal lu dul lu baax amul leneen leen la nga leen waxal. parcelle ñoom damunu làmb yàqa làmb def émission dañuy nekk foofu di def làmb ju neex parcelle bu buñ ayee ñoom doo dégg ñu ni nan yokk sécurité wala nan nangam yaa ngi dégg na naan ah parcelle kat ñooy noobali xam nga kon loolu kan lan la leen ni di génne di wax ku bëgg a wala nga bëgg a problème da ngay dem si ñeneen ñi am na ñu ëpp waa parcelle ay nangam ak nangam mais lii ñun loolu leen gis man loolu laa gis ah waaw amul lu leen di wax te nit boo nekkee say nit ñoom amul ah, am na foo xam ne seen wax eggu fa yow mi fa sa wax àgg da leen koy eggeel noonu la rek làmb moo toll foofu ah coow la nii wax nii mais après ñun ñëpp ñoo far waaw. Mm-hmm. mais 100 pour cent parcelle bi ñuy wax ne dafa dëgg ndax boo xoolee ci mel ni pikin amoon nañ fi 100 pour cent ak yeneen gox comme Guédiawaye wala comme feneen ak feneen mais ni ñu gis 100 pour cent bi depuis bi gars yi naan 100 pour cent parcelle dafa dëgër ba tey dafa dëgër. amul benn coow amul sant yàlla day day dëgg rek xam nga lu nekk dëgg moom mooy continuer lu nekkul dëgg du ah. waaw parce que dama jàpp ne ñun si dëgg la nekk xam nga Modou jiite leen ku mel ni Modou Lo doon roi des arènes lamba ji lu mu rëy rëy rëy rëy moo jiitu tey moo jiitu si sàppe yi mooy taxaw ni nan doxal li làmb fu waay nekk si làmb Modou Lo moo jiitu kon moom bu doonee loolu wàcce boppam di soutenir ay rakam pour ñu egg fi mu egg wala ñu am loon am loolu sant yàlla la parce que am na tête de file yu bari yu ko fi daan am li xam nga daan andu nekkee tête de file wala ñu nekk euh, benn état bi rek dañ dootul entraîner seen écurie dootul nekk seen koñ ñu ngi si yeneen borom xaalis yi xam nga nekk si ay affaire loolu après bu ko sa mbokku rakk di gis day mer kon boo wootee cent pour cent danaan yow boo yow sa bopp rek nga ñoñal boo ayee rek ngay ñëw xam loolu baaxul Modou Lo xamul kii moo aye xamul kee moo aye yaa ngi dégg dafa dem ba nit ñi nee naan sax Modou Lo dafa lata si image yi wala mais du loolu xolam la Modou xolam la Modou Modou Modou fi Sadio Mané toll fa la Modou toll fu ko raw Modou gën waaw yow man ma lay wax téere Modou di kilifa Modou bu mag la biir Sénégal billahi wallahi kilifa bu mag la moodu mais daa wàcce boppam xam àdduna déggoo ma ne fi mu toll nii doon jeune di dugal làmb seytaane soxla la nga dëddu loolu xam nga dénk sa ndaw yàlla kooku yàlla da lay fay yàlla nee na dénk ma sa ndaw ma la sa mag kon fa la Modou toll looloo àdduna da ngay jàng da ngay am si loo nekk nga bàyyi lenn li amoo la nekk bàyyi lenn li loolu la rek mbër bu fi nekk nii yaakaar ni yow yaa ngi def nit ñi xamuñu rek mooy loolu da ngay toll fenn da ngay chuter moo tax da nekk say entraînement nekkul logique xam nga yenn yi nga bañ ko def parce que sportif dafa am lu muy moytu ak lu mu bëgg xam nga lii la dan da ngay lay tegal plan ni la sport lii la bëgg lii la bañ yow da ngay xool li mu bëgg nga def ko li mu bañ bu ko def pour dem loolu muur si loolu la nekk muur da ngay dem ba ñu ko faral lu woon sax dan faral dan ka ndax jaamu yàlla bi mu nekk ak lu baax li muy digal nit ñi xam nga ak ni mu nekk Sénégal xoolul maay roi des arènes werantewul ay problème bu ne am na fi ay problème mu empereur problème mu lee problème mu maréchal lu ne am na fi mais Modou déggoo ko benn kàddu bu mu wax. te pourtant moom mooy ndayu mil gi mooy concernant bi mais waxul merul dara ñoru ko li ko ñor mooy waa parcelle nekk si jàmm li mu yor mu koy sauvegarder noonu la ah. loolu la rek. mais par des fois da ngay dégg ñu ne Modou Lo mi ngi nekk roi des arènes mais fay ñu ko salaire comme ni Balla Gaye nekkee ampleur ñu koy fay chaque million cinq cent tegal ko ci ay dund ndax dañu gis euh, bi ko Balla Gaye nekkagul ampleur daawoo dégg que ni roi des arènes kenn du ko fay mais da ngay dégg des fois wax des arènes kenn du ko fay léegi ampleur la xale yi bëgg a bëre parce que ampleur moo am salaire moo am rafetaay waaw loolu la parce que ku yokkuwul yaa ñun ma manga la fekk mu doon roi des arènes kenn musu ko fay Tyson jël ko kenn noonu yaa ngi dégg Eumeu Sène noonu Balla gay noonu kenn musu leen woon fay Balla Gaye yaa ngi dégg barki Demba Ndiaye leen dégg empereur dañuy fay loolu sant yàlla loolu yokku lamba la ba léegi weer deewagul ñu taxaw ni wax jox nañ Balla Gaye nit ñooy wax rek bëgg a pronostic loolu sant yàlla la dalay lay wan làmb ñaarang fi muy Modou Lo Balla Gaye parce que luy am si ñoom lay amee luy am si ñoom lay amee moo dafa jël roi des arènes sopi làmb indi làmb beneen xar kanam du tardel arbitre CNG du ko dagg du def lu dul yoon du nangam comprendre nga ñëw wane beneen xar kanam ñëpp naan kii dafa dof kii làmb du takk téere tey ñu ray ko moo ñu ñëw mu daan ñu ni waat noonu mu daan ñu ni waat noonu fa la jëmaat daan comprendre nga kon loolu beneen xar kanam la andi tey empereur Balla Gaye dem na ba nekk si fin carrière nit ñi di werante mënatul ak mën na xam nga li ma la wax mu jël booy ñaa booy ñaa daan ko ñu dem defaraat ko xam nga andiwaat ko pour leexal làmb ñu andi benn benn argument maanaam benn benn benn affaire boo nga xam ni dañ koy tudde challenge la rek ñu teg ko pour biir làmb loolu la looloo fi nekk waaw coow la rek làmb ak coow loolu moo tax mais ku ne fii xam nga kuy roi de arènes ak kan moom moom làmb ak kan moo tos. yàlla na yokk man lu ko dàq amul lu ko dàq nañ jël mais ñun ñun waruñu loolu. mais xale nañ bëri ampleur nan dem bëri ampleur ñun ñun ñu si lu nekk ku nekk ak sa yoon la ñaar la ñaar la lii dëgg ah ak li nekkul dëgg looloo fi nekk. mais Balla Gaye daan Tapha Tine depuis loolu dégguñu ay combat Balla Gaye dégg naa sax jox nañ ko avance pour moog Eumeu Sène pour troisième combat mais est ce que loolu tamit ak nit ñi doyaluñ ci loolu. Balla Gaye yéen boo leen xoolee Balla tamit doful Balla Gaye dafa jugee si benn xale daanu dem jëli benn mag daan ni mooy empereur na jël ci xale yi. xale yi fi des de mu waaye Balla Gaye day ngaaka Balla Gaye day ngaaka du ngaaka du laal xale yi de <laughs> xale yi daa am moom. <laughs> xam ngeen nga man waay yow. Modou Lo ba moom xale. loolu kenn waxatu ko. ndax li mu jël ñaari xale daal la jëlaat beneen xale. moo xale ya tolloo. mais Balla Gaye tey ban xale la war a wàcc may ko sax. bari na bari na bari na. ah mais kan moo ko fi dese. du ma lim benn mbër naan la bëree Balla Gaye. waa kër waa kër Ama waa kër Ama Baldé. waaw léegi. léegi kan moo ko fi dese. par parcelle amul xale. jàmm gën amul xale. Fass amul xale. limul ma benn xale parcelle limul ma benn xale Pikine. yaa ngi dégg lambu jàmbur la comprendre nga ñoom la moom moo moom boppam di bëree moo moom estafam soo si waxee lenn wax rek da lay gaafal te man duma nangu ku ma gaafal yaa ngi dégg Balla Gaye c'est un champion c'est un maire mooy empereur u làmba ji yoonam la na jël yoonam point ah. yaa ko wax li ma wax rek nga wax gis ne ñëpp moom lañ bëgg mais bu loolu mënul am nag kan lay bëreel ah bu dee waa kon moo tax koroog lépp su ko su jëlee Eumeu Sène rek sama waxu koroog ñëw na empereur mooy pour paay ah, waaw bu ko def bu bëgg bu bañee nag àdduna tamka wala aju àdduna wax maa ko wax de ah. samay wax nag jali muso ku wax gis ah. bi ma nee Tapha Tine dan la saraxe ñëpp dan bàyyiwunu ma xel mais tey la ma nit ñi di woo naa ma li nga wax am na bu jëlee euh, Eumeu Sène mooy sarax bi mooy empereur bi loolu ñoom ñaar la man doo ak moo waxu kooku ah mooy waxu moo waxam waaye tamit waaye waxam ay mbër yi nekk actualité mbër yi bëgg a bëre waaye ah hmm. ak mbër yi dul tuumal nit ak mbër yi nekk si hmm. mais da nga bañ Eumeu Sène barke alxuraan man te jëlul jëlul jël Eumeu Sène jëlu ko loolu la naqari wala non Eumeu Sène man amul lu may bañ si nit su ma naree bañ si nit yàlla na ma yàlla rey man julit laa non parce que dama xam ne Eumeu Sène nekkul di bëre moom bëggul bëre moom day folklore day ambiance rek la am. yow pare nga pare nga. Franc amul combat ñu wax la Franc nga nekk jaxase ak àdduna di wax ay wax yu kenn xamul waxu ku daanu saret waaw wax wax kii yooyu xam nga moo tax man ay waxam dama koy teg na le nekk si lu ne parce que wërsëgu ñun li mu doon wër lu ko raw lan am. Eumeu Sène lan dëkk ba rek ama ama moo bëgg moo moom Pikine ki gën a neex a Pikine ak ki moom Pikine bu génnee Pikine génn bu génnee ñëpp génn ñun kooku lan amal combat Franc kon loolu la bref quoi nan dem si booy na ma ni ma jeune talent yi war a am xam nga ñu wax ñu am combat na dem jëli Ada Fass. ay mu jëli nga ni. mais moom Ada Fass jël Ada bu ko jëlu kan lay jël. Ada Fass a fi des Balla Gaye naka leen dem jël da doon. da doon tam mais Ada Fass dégg nañ ko mu communiqué ne moom trois combats moo ko dese mu bàyyi la. loolu problème am la Ada Fass bu amee benn combat bàyyi loolu sama problème problème am la. lan nga ne problème am la. man lan mais mais yaa ngi ci làmb bu toogee ne trois combats moo ko des mu bàyyi làmb war nga ci communiquer yooyu. léegi loolu la laa mam communiquer. bi muy dugg si làmb tàggoo ma. buy génn si làmb bu mu tàggoo. xam nga lan la Ada Fass lan laa koy wax la laa ko xamal Ada Fass xamu fu mu dëkk. musuma sol tiset am musuma ko faral. yaa ngi dégg musul bëre ma woo ko téléphone conseiller ko wala dara. man suy bëree buy bëree waa parcelle dama naan yàlla na daanu. léegi kon lan laay conseiller si Ada mais laaj nañ ko ñetti mbër yi ba xam Modou Lo ci la bokk mu ne moom yoonam nekku si en tout cas trois mbër moo ko teree mu bàyyi laam. Arafas Arafas bu ñu tafee Modou Lo taf Arafas loolu du combat loolu actualité yaa ngi dégg Arafas Talfa Arafas ñang baala mooy actualité ñooñu la fiy bëreel parcelle. waaw bu ko bëreewul tamit na dem ñetti combat yi mu bëgg mu bëre ko ñun soo man wax ma si ay araf ay wax ma si booy yi parcelles yi révélation parcelles yi parcelle nu mu mel ak an nu mel nga mel. nekk xale ne ca biir lamb bëri ñu koy supporté bëri ñu koy topp aara bu toogee na trois combats moo ko dese mu bàyyi laam loolu war nga ci war a mën a. aara góorgóorlu trois combats yi bëri nga nekk góor comme sa kaddu la nga bàyyi mu yéex ah kaddoom man dama moom kaddoom nit day am kaddu de waaw. am na solo macha allah ñu dalal ko tey moom Gora Mbaxal ku ne xam na ne moom it wax dëgg yàlla parcelle lay topp mu bëgg mbëru parcelle yi mbëru Cambérène ni ku ci am combat doo ko xàmmee ndax lépp loo xam ne war na ci laam yi da koy def ay ca Gora sànq ñu ngi souligné woon maak yow combat Ama Baldé ak Franc ndax Ama bi mu daanee Gris dafa taxoon nañ ko jox Franc bi mu ko waxee Boy Niang toog ci plateau ne Ama ak Franc du combat Ama yaramam moo tàng moo tax mu ne day bëre Franc mais du combat dégg nañ tamit euh, per baaxum waxaat moom mi ne combat boobu bëgg ko demoon naa seeti mu ne Ama Ama moo ne combat boobu combat am la moo ko jël déjà kon ñoom peut-être mën nañ bañ a nangu combat boobu Franc Ama. waaw ñu ngi jëm le 24 novembre ah Modou Lo euh, Siteu combat boobu la nekk di préparer yaa ngi may dégg. Modou Lo Siteu le vingt quatre novembre ma au passage Mansour Ba maa ngi koy gërëm di ko ñaan borom combat royal bi ak ñoom assurance ñoom euh, Papa Sow Papa Gueye Xeer ñoom asan Cheikh Ndiaye ñëpp yaa ngi dégg gis nañ combat préliminaire yu neex yuñ tëgg waaw yaa ngi dégg ay Ama Dia ak Boy Bale nu mu tuddee sax ak nëpp Euh, Santa Gningue Mamady Ndiaye combat daaw ko. Alburax tamit dinañ xew ñoo souligné bagage yëpp ga ga combat yi ne ko yaa ngi dégg ñu ngi si waaw léegi ñu jël euh, beneen combat préliminaire Marley ak euh, kële nu mu tuddati sax. Anaconda ah. xam nga Baye ñu ngi koy ñaanal ndam bëru parcelles yi ah. da nekk si ay combat ah. yàlla yàlla may ndam Modou mooy ubbi baal bi mooy le roi des arènes mm. xam nga. le vingt 24 novembre naa leen may ay surprise yu garaaw si Modou si combat boobu bu dee nag da nekk si leneen di wax ngeen dem ñooñu may leen loolu yaa ngi dégg ne man si vingt 24 novembre laa ne Modou Siteu yalmin bi doomu jàmm gën bi yaa ngi dégg leen wan ni combat yu neex a ngi noonu Mansour ba tëgg le 24 novembre looloy actualité man si loolu laa nekk Modou li mu nekk si forme gis nañ ko yàlla na ko yàlla lafal cat combat bi doon ëpp préparation yi combat yi fi jàlloon. Modou Lo le roi des arènes cey le 24 novembre Modou Modou dongali jug parcelle romb Grand Médine romb 22 romb parcelle 1 ba 26 dugg Canada romb waa Géejawaay romb Géejugu yaa dugg biir Pikine dugg arène nationale dongali may leen njaabam bi cey le roi des arènes si ta jugee jàmm romb Fora romb Pikine romb foofu yëpp dongaleeg ñëw euh, kii ñu ni kan moo tëgg ñu ni Mansour Ba le PDG de Jambar l'homme l'infatigable tey kenn du loolu ay le 24 novembre. yàlla leen yàlla dooleel. Mansour Ba dafa amatul xaalis wala Ba. mais waa Alpura ñu seen ko gisoo combat yi neex yi ay Talfa euh, ay Pokola. leneen doon jooy di ñaan yàlla xale yi am combat xale yi am nañ combat ñaanal leen promoteurs yi rek bailleurs yi. Mm. xam nga CNG gën a defar waat moo gën nga may jéem a dugal ci ay Alburax ak Mansour Ba ñooñu yàlla dimbali na leen ñu dañuy ñaan yàlla mel noonu am fi lu ñuy gàññe di ko defal sunu rakk yi loolu lu baax la damuñu def lu bon lu mooy ñi ngi jël seen xaay di ko dugalaat Sénégal làmb loolu la mënoon jël seen xaay dem Europe di ko fa liggéey loolu lu baax la Mansour Ba nit ku baax la li mu am yëpp mu ngi koy jëmale waa parcelle day jël xaalisam di ko dugal social jël xaalisam di ko def si combat jël xaalisam dimbali ay nit ku feebar école yi kooku dañ koy ñaanal alburax tamit jël xaalisam dugal ci xale yi dimbali social loolu lu baax la dem na waaw yàlla na yàlla na yàlla dooleel waaw comme mu ngi comme moom day tëgg licence bi mu yor moom la ñun yor xam nga lool lu baax la ñooñu yàlla na yàlla dooleel man du ma wax du ma wax nit lu ñaaw ñun li waroon wax wax nan ko empereur la woon ak roi li ñu waroon wax àdduna yëpp dégg nañ ñu wax mais comme ñoom tëgg nañ ñun tëgg nañ nan xool rek waaw ñuy xool ñu doxal rek làmbaa ngi dox de. ñoom dañ leen ëpp jàppale wala lan mooy problème non non mais mais mais mais mais mais mais Mansour Ba trois ans la fi def ku koy dem ba koy concurrence al ay ñi fi def vingt ans sant yàlla la loolu sant la ñun alburax moo nu jiit si làmb Aziz Ndiaye moo nu jiit Mansour Ba si làmb tëgg na fi combat bu ne ñun biñ ñëwee ñëpp nu coow ñun ñoo jëkk a tëj esat arène nationale ñun ñoo ko jëkk a feesal tëj ko France soox kon am na lu nga xam ne bu ko nit di wax daa yaa ngi dégg dawunu bay daanu ñun parcelle lan am képp promoteur bu nekk parcelle Ibulaay Mor Diouf borom la 17 Mor moo tëgg la 17 yaa ngi dégg bébé Jackson bu géejuwaay la muy grand combat bi moor Diouf yaa ngi dégg naka nit ñi ñaanal jàppale ko la 17 nit ñëpp ñoo estat 100 pour cent parcelle bi 1 ba 26 grand Médine Cambérène ñëw leen ngeen jàppale Mor moo tëgg combat la 17 na waa parcelle bépp ñoo sotal ko yaa ngi dégg parce que Mor nit ku baax la daa bokk parcelle. bu ay waa parcelle xewlee waa parcelle yëpp nañ génn sotal ko Ibulaay tamit am na combat yi muy dox Ousseynou Laay Jaw Fara Momo Baye Fall Jamaïcain yaa ngi dégg ñooñu ñu ngi si seen yoon ñun parcelle lan am ñun ñoo lan am yàlla leen yàlla dooleel yàlla jàppale leen cent pour cent parcelle bi ñu ngi wàcc ay action yu rëy parce que dañ bëgg a gunge suñuy mbër defaraat goxu parcelle daaw dana amee combat yu bari yuñ perte ñu xam lu leen ko perteloo boo yu bari leen bëgg a toog mooy ñàkk ku leen jàppale ñun nag ñu ngi jëw pour jàppale suñuy rak jàppale suñuy mag 100 pour cent parcelle bi Grand Médine Cambérène Fadia fépp ñu ngay jàppale suñu rak lépp luñ pertoon daaw si làmb dootuñ ko perte dinañ ko ñëw defar préparer ko pour yóbbu suñuy rak ñu daan loolu la ñaan yàlla waaw. am bu taxaw euh, dox ci diggante Zarko ak Gris Bordeaux. waaw loolu bu neex la loolu combat bu neex la waaw yàlla na yàlla jàppale ñu ko tëgg alburax c'est un bon combat combat bu neex la Zarko. yàlla na ko yàlla may ndam doomu Grand Yoff bi. mais à part Modou Lo ak Siteu lan la ñuy xaaraat ci waa càmbaar nan la ñu war a ñëwaat xam naa saison bi moom peut-être mi ngi jëm ci tëj mais nan dañu nar a ñëwaat. non yow waroo laaj loolu yow taxaw fii nee nga combat yëpp alburax jël na ko loolu loo si laaj. waaw léegi waaw léegi kon lu jeex kay loo fay defati. programme wu nu dara. pro yéen loolu ngeen gis yéen loolu ngeen bëgg programme wu dara yéen ku am combat royal <laughs> ah début saison. Hmm. ngeen laaj kooku fan la jëm. mais benn combat royal bi lañ dégg. dama lay laa la. dala mooy yow loolu la def yow loolu la def yaaga yàq loolu la def yaaga liggéey. <laughs> <laughs> non non non non day foo ama jë noonu la ama jë looloo koy dundal seen xam nga révélation la xale la kontaan si moom ni nga li nga nekk mooy dëgg barki dem may nañ ko billet Dubaï fexeel am billet Makka jox ko sa yaay fexeel dem États-Unis di récolter dara gis nga ni sa image da nga koy fexe di ko utiliser xam image dafa seer si nit te moom image am na image am li muy jar mu jëm utiliser boppam am si yokkute am si njariñ loo àdduna noonu la ni da ngay muus mën naa lii xam nga du ma santaas kenn nag mais damay dox réalité pour jariñu si ki ma keneen ki jariñu si man maa ngi nii yéen fayu leen ma mais maa ngi fexe ngeen di am njariñ xam nga li ma la wax seen la parce que man su doon man lii bëgg naa showbiz showbiz daf may fay mais man dama teel a gëm sama bopp di may sama bopp dem uti liggéey liggéey xam nga ma la di fay sama bopp yaa ngi état di ma fay bok comprendre nga man damay liggéey bu làmb ji jotee ñu mbëri day xëy entraîné ji liggéey man damay xëy dem bureau fajar man loolu laa gëm kon yéen li ngeen nekk dama leen siy jàppale Ama Dia mbër la mécanicien la mais mbër la tamit si lii yéen dañu xool ay viam nu muy demee ak nu koy promoteur di ko maye jàppale ak noonu la rek jàppalante la rek waaw un gagnant gagnant lay doon cinquante cinquante noonu la Ama yàlla ko yàlla jàppale moog ay moo ay buur sitang fii xam nga ay ñami ñami ñami ñami tamit ñami ñami na génn wax def ay affaire comme ni ñoom Amadia di defee si làmb la bokk moo booyooy ay nawle lan ay naataangoo lan ñoom xam nga na leen gaa xam nga rek na gaa yi jël euh, ñam-ñam may ko biyee moom it mu dem tukki ñëw quoi si la bokk quoi wax dëgg yàlla xam nga ay ñoom nëpp xam nga rek waaw comédie show la mais làmb la man dama leen di ñaanal wax dëgg yàlla jullit laa dama leen di ñaanal franchement sama xol li ne mooy booyooy am njariñ parce que ay soutien de xam nga am na lu bëgg suba war nañ am oto war am xaalis war nañ am soxna war am kër gu baax xam nga leen gars yi jàppale quoi loolu rek laa siy wax. pour bi ñuy dagg. waaw CNG moom chaque jour moo wax li mu teg tegu ko si yoon. moo tax gars yi ñu ngi jël ay Malick xaw ma arbitre boobu di ko wax CNG ay Bekaay xam nga nit boo nekkee si yoon doxaloo yoon nit dañuy wut yeneen tekk place bi nga nekkoon keneen moo fa nekkoon tekk yow nag boo fa nekkee da ngay jéem a góorgóorlu da ngay jéem a góorgóorlu def lu baax CNG dafa dem ba ñëpp ni càmbay loolu baaxul kilifa boo nekkee si bërëb da ngay rafetal di def lu baax yaa ngi dégg bira seen entourage am na ko xool ay ñoom max da ngay ñëw CNG ñu lay jaay affaire yaakaar ni ñoom rek ñoo nekk fii si àdduna xam nga nit ñi moomoo leen nit ñi dañuy liggéey comme ni ngeen yore liggéey mais jaaral leen yoon liggéey bi xam nga da ngeen di jël benn règlement doon si waxtaan ak acteur bi mbër bi mooy acteur bi xam nga bailleur bi mooy promoteur bi CNG euh, membre euh, euh, comment on dirait ménagères yi ñooy signé combat nan woo facteur yooyu ak ay alerte xaw ma nan leen woo ñuy toog di waxtaan règlement ñuy toog di defante di nangam di naa mais CNG day jël lu ne neex mag sa nekk fa di xoogaliku xam nga di jaay ngule ci ay weccitu jàmbur xam nga yooyu rafetul quoi xam nan defaraat làmba ji entourage làmba ji parce que làmba instant yi nii nii nii Sénégal benn sport gënu ko fi neex mercredi tey la jeudi 15 août lamb Ouzin production tëgg lamb ju neex xam nga kon nan defar lamb quoi boo yëng siy jariñu me CNG malheureusement ama rek gars yi nan leen ragal quoi te du leen wax dëgg man moom kenn man maanoonu si man dara duñ ma aj duñ ma bu fenn fun ma dafa waa yow man sama bopp laay damay wax man nit ñi lamb lépp ñëpp laa faral man Pikine nag géej waaye ak jàmm gën ak man CNG bu nekkul si yoon dama koy wax parcelle laa féetewoo ragal fee day xañu wërsëg mais man ay jàmm gën dama leen yéene jàmm ay pikin keneen ak keneen CNG na defaru mais moomu nu dañ leen dénk Sénégal loolooy problème moom si nguur buñ ko dénkee rek jàpp na ni moom moo waaw mais loolu rafetul quoi ñu ngi la dénk CNG Bira Sène ñëw na fi def lu extraordinaire kële astafurla wax sa man Bira def fi dara kële ki nekkoon CNG passé yow tamit xamoo sax wàllu làmb ke fa bari ngay ñëw di ma introsé man xamal la seen problème maanaam moom man dañuy dagg mbëri te dañuy gis dañuy gis mbëri ci feebar te duñ gis ñu comp dara jox leen ci man loolu mooy sax ay acteurs yi feebar xam nga mbër bu feebar paa yi ancien gouloir yi doo géej CNG jël cinquante mille mbër am problème dem kaso doo dégg euh, CNG jël cent mille mais moom tamit defarul quoi nit ndeysaan am loom dafa metti ci xol man de su may liggéey ci dara ki ma koy liggéeyal amul woon njariñ billahi wallahi ma xool sama bopp xool sama entourage mbëri nan dooloo dajaloo waxtaan seen biir ni CNG di leen koñee ñu koñe noonu CNG boycotté looloo fi ne waaw dëkku dóor dëkku fayoo ko tas loolu rek. ay ca góor rek kontaan nañ ñu ngi lay jaajëfal ndax ku ne xam na ne temps amul waaye moom li ñuy faral di Dakar People nga ñu ngi lay bu baax a baax di la jaajëfal. bul ndax waa Bawol mere ma waa keneen ak man fépp laa bokk man luy dox waaw fépp laa man làmb nay dox rek seet waaw man moo amu la yooyu waaw yéen ngeen di gis seen bopp mbëri di gis seen bopp ménager di gis seen bopp promoteur di gis seen bopp lan loolu bu amee rek jàmmam man loolu laa gëm waaw di gërëm na waa cent pour cent parcelle bi xam nga sunu groupe boobu nga xam ni mooy cent pour cent parcelle Cambérène Grand Médine Fadia ñu ngi dox par nànk ku yoddu sëqat ñu ngi dox par nànk pa pas pas par pa ñu ngi koy dox ñu ngi xool acteurs yi sëkk làmb parcelle ñu ngi dem di waxtaan ak ñoom xam nga bon volonté ñëpp Papa Sow ñu ngi koy gërëm gis nañ taxawaayam si cent pour cent parcelle bi mu ngi koy communiquer mu ngi koy wax mu ngi koy doxee luñ jaaxle dem këram toog waxtaan ak moom muy doxee leen nii te bu luñ dox gis njariñam ambassadeur bi muy Modou Lo ku baax ku ne mu ngi nu koy booleel lu baax lu ne mu ngi koy wax nee na góor yéen yor affaire yi fexe leen ngeen dimbali samay rakk yi nekk sama ginnaaw man am ma si njariñ lu foo leen ma soxlawee di ngeen ma gis mais aw ma si njariñ li si am njariñ mooy samay rakk te yéene na ay rakkam kooku neex àndal la kon Modou ñu ngi koy gërëm bu baax di gërëm ñoom père Ndiouga ñoom père Ibou ñoom euh, Pambay ñoom Kotsulat euh, Mas Bantamba waa Grand Médini écurie ñoom américain waa Sa Ñambur ñëpp ñu ngi leen di gërëm entourage yi ak waa fekkee ma si boole astafurlah waa kii parcelle mbooloo ñu ngi gërëm ñëpp gis na lépp dóor dóoraat ñoom deev gaa yëpp gis nañ leen 100 pour cent mu ngi dox ñoom Jack ñëpp ñoom Laurent ñu ngi gërëm ñëpp xam nga di sant ñëpp yàlla na jàmm yàgg di gërëm Baye Seydi Baye Seydi kaay nii doomu nday ñang baalo kaay nii xam nga doomu nday ñang baalo mu ngi nii Baye Seydi sama waay daa ñëw géej féexlu xam nga fi ngeen ma fekk Mali bu mooy loolu sama doomu nday la ah. xam nga mu muy doomu nday ñang baalo mu bëgg ñang baalo nag xam nga di jàppale ñang baalo estaafu ñang baalo bi si la bokk muy nit ku baax bin bok affaire ba léegi ñu ngi ko doxal kon Baye Seydi nit ku baax la ma koy gërëm Baye looy wax. Ah, no mu man tawaay lu mu wax noonu la de. billaahi tawaay moom jàmbaar la quoi sunu waay la quoi. billaahi fu ñang baalo ak ma ne laa fu ñang baalo est ak ñun fi mu nii ak grâce moom la de. billaahi wallaahi taalaay waaw mi ngi si biir mi ngi si biti na. mais après li ci kanam na mooy dàq na billaay dina baax de barki alxuraanu karim suñu waay la na waaw danoo yàgg dundal lu na avant làmb na ñu làmb boolewu nunu de waaw ñu ñang ay góor ñu làmb boolewu nunu waaw démbaloon na après tey ñëw na yaa ma gën a xam na mais après mooy dàq ci kanam na ak Serigne Bamba ok jàmma ah, di leen gërëma ah, ah, Aïssa wéef bi muy def ko bala que na moom lu ma wéef sant yi damay fayeeku sit yi sit buy ñëw di nag danga may fay sit buy ñëw danga may fay mu leer nañ ah waaw di gërëm nag Mansour Ba le de jàmbaar xam nga muy nit ku baax tëgg combat royal ak ay yeneen combat ñoom Marley ak Anaconda xam nga santan di ñaanal ñoom xale parcelle ndam xam nga di gërëm Mansour Ba ñoom Papa Gueye xeer ñoom assurance di wax waa jàmbaar yàlla leen yàlla jàppale le 24 novembre li si Mansour Ba bëgg yàlla ko yàlla may événement bi ni mu koy waaj ak li mu si bëgg yëpp gis noonu ko yàlla na ko yàlla àggaleel yàlla na yan bi oyof Mansour Ba nit ku baax la bëgg ñëpp ku ñëw Mansour Ba ndawalu guddi la ku làmb daj da ngay yaakaar ni yaa ko moom amul góor amul assurance amul ba ñëpp. ngir intérêt wala xaalis Mansour Ba su ma nay ànd ak moom xaalis yàlla na ma yàlla yàlla na nit ku baax dama ànd ak moom yéene ko mu yéene ma muy may conseil sama ngénte bi may ngénte sama laaj job ki ma tuddee laaj job damaa gis mu jël xaalis bu bari jox ma bu ma naan waa kii nu mu demee nii mu ñëwaat surtout bi toog foofu ba ngoon jot ànd ak papa saw xam nga ma xam ni kii nit ku oyof la kii gëm-gëm lay demee gëmewul ngir xaalis kon Mansour Ba dama koy gërëm di ko ñaanal le 24 novembre dinañ jaay combat ba mu jar barki alxuraanu karim doonu gën a gore waaw ca kaw ca kanam le 24 novembre mooy rendez-vous bu Siteu Modou Lo dóor mu daanu cak ca gin gin dóor mu daanu cak ca gin gin ay <laughs> ca boobu la jeexalee euh, kooku mooy a Mbaxal ñu xaar retour bi le 24 novembre dox ci diggante Siteu ak euh, Modou Lo le roi des arènes ndax ku na xam ne ne combat boobu Sénégal yëppam la xaar titre roi des arènes la ñu teg xool Modou day des ci moom wala day ñibbi fi nga xamante ne ah, mooy jàmm gën loolu yàggatul mi ngi suñu kanam di wax yàlla tëgg tey nag ñu ngi woon fi nga xamante ne mooy Malibu seesi woon ki nga xamante ne mooy Gora Mbaxal ndax ku ne Gora Mbaxal xam ne monument parcelle la muy jàmbaar ci parcelle jàmbaar ci Cambérène ndax nee la mburu parcelle mburu Cambérène ni ku ci am combat dalay taxaw gunge la ba yàlla def li muy a baax di waxtaanee saa su nekk rek Aïcha laa ci àndal moo nekk ci caméra ba tey nee la ayaa ngeen ci àndal mënu ci micro ñu ngi jaajëfal ñëpp di kontaan ci ñëpp di wax nag ba beneen yoon euh, ci beneen émission mais ba Aïcha bala ñuy tàggoo sax ku ne xam na ni tamit démb defoon nañ li nga xamante ne mooy émission bu spéciale ñun ak euh, Ama Dia mais des dañuy wax naan que est que sax nag Ama Dia nangam nangam mais du dara émission la woon rek ndax nee naa la ñun chaque jour rek dañuy toll foo xamante ñun dara mënutuñoo euh, yàqal dañuy def li ñu war suñ paree après mu jeex mais nañ comprendre xam ne am ah, moom borom baax la te tout le temps que rek ni muy waxee noonu la noonu la mel kon ñu ngi koy jaajëfal moom di ko kontaane bu baax di wax merci beaucoup ama kontaan nañ ci yow démb macha allah Aïcha laa ci ne ci caméra bi saa su nekk rek ayaa ngeen ciy àndal moo ne ci micro bi ñu ngi jaajëfal ñëpp di kontaan ci ñëpp di wax bi beneen yoon euh, ci beneen émission spéciale lamb jërë ngeen jëf